salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV di leen jaajëfalaat bu baax di am contentement ak mbégte di a fës ci bopp xibaar yi ci nuyoo bi nag ah, di ko nuyu bu baax a baax a baax di nuyu sama gars yi rek Mbaye Babacar nuyu a euh, jàmm ak salaam wante di nuyu mbokk ñuy topp ci Leewtoo TV. di lay ñaanal jàmm ak salaam ñoom tamit. Assane Waalo nuyu naa la. Ndeye Mbacke fay naa la amaan mbégte jàkkaarloo indi leen li gën a fas ci yenn kaay yi. mu ngi noonu ah revue de l'arène bi Uli Jador moo leen koy may chaque matin fii ci Leewtoo TV nee naa leen consommer local la ci réew mi lañ ko defaree doomu réew mi moo ko fi def nañ ko utiliser mu ngi noonu suñu làmb xëy ci xëtam mu njëkk tey. vendredi 5 mars 2021 Pape Abdou Fall fixe la date combat Papa Sow Siteu le 1er août allah. yooyu la dafa am ku ko yëkkati Pape Abdou Fall mi nga xamante ne bii moo jiite Paf production taxawal combat sita ak Papa Sow nekk combat ba nga xamante ne bii combat la ci biir combat yi te combat boobu demoon na ba ñuy waaj a bëree mën mën naa ne demoon nañ ba nekk ci veille bi sax ci la mbas mi daal di dugg ci réew mi daal di jaxase activité yëpp nee nañ nag combat boobu noonu incha allah jàppaat nañu ko. jàpp nañ ko le premier août incha allah bu ci yàlla àndee ñoom ñaar ñu war a taxaw bëre ñoom ñaar Assane. Papa Sow Siteu le 1er août 2021. Cette information a été révélée par un proche de PAF Production. Au premier temps, PAF avait choisi la date du 31 juin qui tombait sur un samedi. Mais après euh, concertation, l'équipe a finalement pris la date du 1er pour tenir ce, cette grande affiche qui doit euh, opposer Papa Sow et Siteu. mu ngi noonu ah yëfi leer le premier août incha allah lu waaye doon jaay rek dina la ma ci diggante ñaari xale yooyu Kara Dollé Mama Sibel bébé bébé Saloum 2 Pape euh, Faye production retient le juin. xanaa di wax suñu mbokk internet yi ñuy topp rek ne bu revue bi dañ leen changer format bi tuuti rek ngir ngeen gën a am mbégte ak content contentement lépp rek ngir gën a dab li nga xamante ne bii moom mooy seen bànneex bu ñëwee ci euh, ki nga xam ne moom mooy fay production taxawal ñaari combat ñaari combat yi nga xam ne nag ay combat jànq lan ndax suñ la nee ki nga xam ne moom mooy euh, Kara Dollé ak mamaya Ya combat ko ñu wax la Sibel ak Bébé Saloum numéro 2 loolu tamit combat la ci biir combat yi Faye Production nag jàpp na yooyu le combat vingt 27 juin incha allah bii di ñëw. Kara Dollé, Mama et Sibel Bébé Saloum de Faye Production retient la date du 27 juin. Le promoteur Mohamed Lamine, patron de Faye Production. a déjà saisi le CNG pour obtenir cette date c'est l'information donnée par suñu lamb mu ngi noonu ah trois combats trois victoires Eumeu Sène roi en avril mu mel ne que ne weer boobu nekk na weer bu njëkk Eumeu Sène moom mooy buuru weeru avril Eumeu seen borom taay si nga borom dof du wër ndax ñi mu bëreel ci weeru avril yépp dafa leen a defal bagage dafa leen a daan ñu mën cee jàpp ki nga xamante ne bii mooy Ousa Sow mu bëreek moom le 12 avril 2020 daan ko jóge fa bëreeg Lac de Guiers le 8 avril 2012 daan ko bëri ak Balla Gaye le 5 avril 2015 tamit daan ko kon mën na noo jàpp ne ëmma daal weeru avril moo ko moom te Lac de am na problème Trois combats, trois victoires, Eumeu Sène, le roi du mois d'avril. C'est le titre donné par le journal Suñu Lamb. Le, le leader de Tay Shinger n'a jamais perdu un combat durant le mois de juin. Il a déjà battu Ouza Sow le 12 avril 2000, Lac 2 le 8 avril 2012 et Balla Gaye 2 le 5 avril 2005, alors que son adversaire Lac 2 a euh, disputé cinq combats au mois d'avril. Il a remporté les trois, euh, fait un match nul et une défaite. ah kon mën nañoo jàpp ne xaw nañoo tollooy victoire ci mois d' avril yi. ñu xool kat mooy moom mooy avril bii nii mu ngi noonu fa mbëri di ñaxtoo li nga xam ne mooy wii kulo chantage chantage boobu di Mbayang Loum nee na woy te gisoo ku fecc gisoo ku tàcc loolu neexul c'est pas intéressant Mbayang Loum moo yëkkati yooyu la kàddu Mbayang Loum nag nekkatul ku ñu présenté ci milieu làmb bi ndax mën naa woy te it day ànd ak ay fecckat ya nga xam ne macha allah heure bu ñu jógee yëngu rek amateur yi dañuy kontaan Mbayang Loum nag li mu wax moom nee na làmb ci anam bi nu ko bëgg doxalee muy huis clos làmb dafa ànd ak ambiance te ñoom bu ñuy woy dañoo bëgg nit ñi di leen tàccu dañoo bëgg di gis ay nit dañoo bëgg tamit di jóg di fecc mais di woy te amul benn ambiance amul kenn ku nekk ci kaw grande yi neexul ci ñoom. Mbaye Loum chanteuse au niveau de l'arène accrochée par le journal suñu làmb la chanteuse. estime que chanter sous, sans voir personne applaudir ni euh, danser, danser n'est pas intéressant. mbay euh, Mbaye euh, invite également aux lutteurs de fair avec, euh, de faire comme les autres sports, c'est-à-dire faire le huis clos, mais sans réunir les, les personnes. mu ngi noonu ah Bécaye Mbaye communicateur traditionnel mbay Babacar moom àdduna ci li nga xamante ni mooy rumeur bi daw ci dëkk bi contre les neen nit ñi dañuy jaawale maanaam punkal yi ak mbër yi mu ngi noonu suñu papa Bécaye mbay moo wax loolu moom nee na ponkal rek wala am gabari taxul nga doon bër nee na ñi ngeen di gis ci biir manifestation yi ñu ponk da nekk ay ponkal bu leen leen jaawalee ak ay mbër ndax mbër yi wax dëgg yàlla ci famille bu baax la ñu bokk te it wax dëgg yàlla ñépp ay référence lañu. Bécaye mbay communicateur traditionnel. Euh, le chroniqueur, euh, le chroniqueur est euh, interrogé par le journal Sunu Lamb et il estime que les gens font l'amalgame entre un gros bras et un lutteur. Le chroniqueur revient également sur les nervis qu'on voit ces temps-ci à la télé et qui accompagnent les policiers pour, euh, pour contrer les manifestants. Euh, Bécaye également à défendu Gris Bordeaux qu'on cite sur cette affaire. Pour Bekaï, Gris est un chef de famille. Il n'ira pas dans les rues pour euh, détruire ou saccager les mains bien d'autrui. moo nga noonu ah, ca noonu Gris Bordeaux président des moom àdduna ci nee na moom euh, bañ na lépp li nga xamante ni mooy violence surtout toutes forme formes Mbaye Babacar. Euh, Gris Bordeaux moom mi nga xamante ne bii moo jiite mbër yi nekk en activité ci làmb ji moo yëkkati yooyu la kàddu nee na violence moom àndu ci tey. àndu ci ëllëg bëgg ko teyit it anam buñ koy mën di defee moom bokkul ci li nga xamante ne bii moom mooy philosophie am it ñi nga xamante ne bii ñoom la jiite mu ngi leen di soññ bu baax a baax ñu bañ a bokk ci lañu leen di tudd. Gris Bordeaux président de l' association des lutteurs en activité cité sur les affaires des nervis Gris Bordeaux dément l'information. Il dit qu'il n'est pas euh, concerné par cette affaire et qu'il est contre la violence sous toutes ses formes. Gris révèle également avoir fait des investigations pour connaître le gars avec lequel on l'a confondu. mu mel ni ki ñu ko doon jaawaleel def na ay investigation ba xàmmee ko ba xam kan la kon na ñëpp jàpp ne ki ñu ko doon jaawaleel du Gris Bordeaux. ma nga noonu yëf ya leer na Covid 19 après 12 mois de chômage bañ toogee atum yàlla bëri amul dara amul mu mel ni que CNG dafa nar a yokk li nga xam te ne nii mooy euh, saison ren bi incha allah Mbaye Babacar. waaw mu mel ni ki yëkkati yow yooyu la kàddu mooy euh, Bira Sène moom mi jiite CNG nee na gannaaw ba ñu toogee fukki weer ak ñaar maanaam atum lëmm mbër yi bëri wuñu arbitre yi saxuñu sifflé arbitré amateurs yi seetaanuñu làmb nee na. ñi ngi xool ci ban anam la ñuy yokkee lii di saison bi ngir amateur yi gën a mën a seet mën a mën a mën a dundaat làmb bu baax a baax. Covid-19, après 12 mois de chômage, la prorogation de la saison se dessine. C'est le titre de Sunyu Lambo. Le journal di que euh, cette prorogation est en cours, mais euh, en présentement, rien encore officiel. Tout est dans les tuyaux. moo nga doon ah position du CNG contre les nervis mu mel ne CNG jël na ci ay ndogal yu dëgër dëgër ci mbër yi nga xam ne ñoom la ñuy wax ñu ngi ci euh, nervis yi di jàppale policiers yi lan lañ ci wax Mbaye Babacar. CNG lim ci wax mooy que képp ku ñu ràññee nga bokk ci nervis yi nga xamante ne bii ñoo ñoo bokk ci manifestation yi CNG ndogal bi ñu jël mooy daañu retirer li nga xamante ne bii moom mooy sa licence yow moom làmb ji dootoo sëgg bëre. position du CNG contre les nervis la position du CNG est très claire estime suñu làmb euh, le journal dit que les lutteurs qui seront identifiés en train de d'accompagner les policiers et euh, qui font euh, le service de nervis verront leur licence retirée tout bonnement mu ngi noonu de loolu de yaakaar naa ne dara jaru ko pour benn fan nga ñàkk ci li nga xam te mooy sa carrière amul sens. et ak lan la ciy fay tamit jaru ko. jaru ko nga nga noonoo ci mbër ni mbëree fan si am ñu koo soppu mooy loolu. mbër mbër ak sa avenir li nekk sa kanam yëpp nga yàq ko ci benn journée benn 15000 francs bu la ciy fay dara jaru ko. amul sens say nawle noonu ah la ñuy jeexalee li nga xam te ne mooy journal suñu laam jëm ci journal record record âge de la retraite plus plus que 45 ans mu mel ni que mbër yooyu ku ci mel ni Eumeu seen Gris Bordeaux B52 dundalaat nañ leen yokkal nañ li nga xam te mooy âge bi ñu war a retraité. Euh, ministre bi moom moo wax loolu nee na euh, ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo ñoom ñoo toll ci ñeent fukki at ak juróom waroon na retraité fi mu toll nii. mën nañoo yokk seen mën nañoo yokk li nga xam xamante ne moom mooy âge retraite bi ba mu romb foofu mu mel ni ku ci mel ni euh, Gris Bordeaux Eumeu seen ak bombar Bombardier ñoom ñi doon waaj retraité ci làmb ji mën nañ wax ne ministre bi àndiwaat na leen boo fi mu toll nii ñu amaat place amaat sens ngir amaat ay combat ngir barewaat ngir mën a gisaat seen bopp ci làmb ji amaat xaalis bu ñu defaat seen poste mën koo mën koo toogaale. âge de la retraite à plus de 45 ans, Gris Bordeaux, Eumeu Sène, Bombardier ressuscité par le ministre des Sports Matar Ba. C'est le journal de Record. Il dit que Bombardier va atteindre les 45 ans au mois d'octobre. Eumeu Sène a déjà 42 ans, Gris Bordeaux 41. Ils vont vers la retraite, mais le ministre a sorti une décision repoussant l'âge de la retraite à plus de 45 ans et cette décision va leur permettre de poursuivre ma nga noonu naa kontaane naa la bu baax loolu moo nekkoon li gën a fas ci bopp xibaar yi bay Babacar looy tàggatoo li may tàggatoo xanaa di leen fàttali rek ne Iwil Jador ñu àndal ñu ñu gën ko ñu gën ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax sama mbokk jigéen ñi dugg ci waañ wi jàppante leen ak Iwil Jador ndax ku ci jàppante ak Iwil Jador doo ko réccu mooy Iwil bi gën ci Iwil yi euh, Ndeye Mbacke je remercie l'équipe de Leewtoo les internautes de Leewtoo rendez-vous demain incha allah incha allah mu ngi noonu leen jaajëfal bu baax di am contentement ak mbégte jano yéen di ñan yàlla jàmm yàgg Sénégal gis nañ li xew ci dëkk bi soyez prudent ñun ñëpp ah, ku ci nekk def réew mi comme sa réew rek ñan yàlla jàmm yàgg fi di nuyu internet di leen ñaanal kennal ak jàmm te di ko sàkku ci yéen ba ëllëg incha allah Ndeye Mbacke dama doon dégg ci mag mu baax mu doon mu doon naan jàmm moo gën jàmmaarloo te jaboot jàmmay mbokkam te maam Abdou Aziz da doon naan da ñaan jàmm fu mu mën di naan boo nekkee ci biir gaal gi sa ëmb nekk ci biir gaal gi ñaanal gaal gi mucc bul ñaan ëmb bi mucc kon nag yàlla na yàlla def jàmm ci àdduna bi rawatina suñu réew mii nga xamante ne bii réewu teraanga la yal na fi yàlla def jàmm yàlla yàlla delloo si waat xel yi ba lépp delluwaat fa mu nekkoon ndax jàmm moo gën jamaa mbay ci loolu rek bu gaal ga muccee ëmb ëmb bi mucc nga daal di mucc kon mu ngi noonu jaajëfalaa leen bu baax ba ëllëg insha allah ci Leewtoo TV